mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam di sant yàlla bu baax a baax di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm euh, gàmm gi mu jógee bu déwénee yàlla nañ ko fekkee te yàlla nañ ko tal buñ ko talee yàlla nañ ko mën di gërëm bu baax Ablaye El Hadj Modou juuf topp son bu comme ni mu koy defee Sanjogu Assane Mesere maa jigéen Aïcha ñoom Kandji euh, Souka Betty ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci nu ñu àndee ak ñun ci 30 minutes chrono ci solution info TV dafa am solution TV am solution info trente minutes chrono nag ci solution info lay am kon di leen gërëm bu baax di leen wax ni dee leen ko visiter dem di xool am na yu am solo. ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam sot ci ak def ci la solution TV ak solution info di gërëm ñëpp nag di leen sant tey nag ñu ñëw ci actualité comme ni ñuy tàmm di ko defee ci diiru ko fanweeri minute jëm ci parti bi di di leen ne Pastef la ñuy waxtaanee Pastef rek lañuy wax waaye Pastef mooy lii def wax mooy liy ay di jàmbat. même buñ ci waxul soog nguur gi dinañu waxloo ci Pastef wala <laughs> fi neen lu yëngu lu ne lëkk yëngal mu ko ëpp doole loolu lépp day natt rek dimension wu Ousmane Sonko ak ni mu toll ci réew mi ak ki mu doon ak ñaari weer ci kaso bi ba léegi mu nekk fi toujours présent bu dee mi ngi ci xol yi mi ngi ci xel yi boo demee bitim réew moom la ñuy waxtaanee boo ñëwee ci presse bi ñii ci moom lay kàbbar ñii ci moom la ñuy sëlmal loolu nag mbiri sunu boroom la mbiri sunu boroom la moo tax tey jii ñi indiwaat ko ci actualité du ñàkk ni ban koy jàpp di ko tëj ci kaso bi du ñàkk ni ban ko naan rebelle la du ñàkk ni ban naan salafiste la ba ñàkk ni ban naan lii la ak lee lu ne ñu jiiñ ko ko ci réew mi ba mujj di ko jën sàcc danoo bëggoon askan yi ba ko daal pare ci moom maanaam yàq nañ ko yàq gu ne ci àddina pour ñëpp ba ko waaye tey jii la ko nit ñi gën a bàyyi xel tey jii la ko nit ñi bëgg gën a bëgg tey jii sax ay noonam même bu ñu bëggee neexal seen waxtaan sax Ousmane Sonko la ñuy waxtaanee parce que am na ci ñoo xam ne tey jii heure bu ñu génnee mi ministre ku mën ci doon même président bu demee bitim réew sax ci Ousmane Sonko lay wax kon nag looloo waral ñu ciy wax ñun tamit léegi nag mbiri Ousmane Sonko ak mot d'ordre Pastef jëm ci parrainage yi. dafa am benn mot d'ordre bu Pastef génnee léegi lu tax ñu naan mot d'ordre bu Pastef parce que kii di Mohamed Ayib Daffé doon mandataire bu Ousmane Sonko doon secrétaire général par intérim bu Pastef moom la Ousmane Sonko yabaloon ngir mu jël ko parrainage kon tey ji kooku bu génnee wax ci turu Pastef dañ naan c'est c'est une voie autorisée boo xam ne moo génn pour wax ne li jëm ci wàllu parrainage waa Pastef nañ ci def nànk nañu tey parce que ñoom seen candidat ba tey ji Ousmane Sonko la parce que li waa direction des élections def ci Ousmane Sonko jaaduwul te danoo gis ni dañ ko war a xeex ci yoon léegi chambre administrative de la Cour suprême suba bu deful nànk buñ ko bëttalul suba ñoom dinañ wax ban taxawaay la ñu am ci li direction des élections def te amu ci sañ-sañ ñoom suba dinañ ci wax pour ñu xam na Ousmane Sonko dinañ ko jox ay fiches su parrainage wala duñ ko ko jox wala buñ ko ko joxee loolu mooy wane ni mun na uti parrainage comme xalifa sàll ak kii di Karim Wade parce que jurisprudence la parce que ñooñu dañ leen condamné woon. teewul jox na leen parrainage ñu dem uti ko am ko ba conseil constitutionnel ñu jàpp ni kii di euh, direction des élections dafa jël lu mu moomul maanaam dafa am sañ-sañ ci loo xam ne moomu ko maanaam dafa jël loo xam ne kenn santu ko ko waa Pastef nag ne léegi stratégie bi nekkatul rek lu leen teg ñu tegoo ko comme réew mi am na yoon ñoom. dinañ dem ci yoon ngir mu àtte leen ak direction des élections ngir ñu wax leen ñàkk jox Ousmane Sonko ay fiches parrainage fa la ne moo tax directoire bu Pastef wala comité directeur ak lu mën a doon bu Pastef jël dogal ne képp koo xam ne patriote nga képp koo xam ne Ousmane Sonko nga bëgg a parrainer képp koo xam ne bëgg nga Pastef am candidat bul parrainer gum kenn. képp ku ñëw ci yow nan la waa Pastef ñoo ma yabal ngir parenage waxul dëgg boppam la ñëwul wala mu ñëwul keneen mais du Pastef kon waa Pastef loolu ñu wax nag la ñuy jàngat ndaxte danoo gis ni nguur gi taxawaay bi mu am man dama gis ni Pastef da leen ko bëggul yombalal maanaam jalgati yoon tëgg leen wëndeelu teg leen loo xam ne du dëgg ñu koy nangu moo tax ñu def recours ca Ziguinchor jël recours def ca chambre administrative de la cour suprême parce que dafa am ay pièges yoo xam ne ñu bari dañoo jàpp ni Pastef da cee daanu ci kanamu nguur gi ci kanamu yoon parce que ci mbiri Adji Sarr mbiri Mame Mbaye Niang ak yi fi xew yépp dal ci kaw Ousmane ko dafa mel na nguur gi da doon def de telle sorte que Ousmane Sonko bañ a dem ci yoon maanaam à chaque fois ñi ngi koy découragé ci kanamu yoon naan ko doo am dara boo xoolee Ousmane Sonko am na ay plainte yu mu dugaloon ci diggante moom ak nguuru Sénégal wala ay nit mais plainte yooyu boo xoolee ba tey jii kenn sëggu ci kenn waxu ci dara mu mel ne seen stratégie moo naan waa ji ñen ko ñëgloo ba du faaleeti yoon ñen ko ñëgloo ba. tey jii bu amee soxla ci yoon sax wala li muy xeex ci wàllu yoon du dem xeex ko parce que mbiri Adji Sarr bari na ci ñu taxawoon ni daa war a dem wuy ji ca tribunal toog ci procès bi ak lu mu mën a jur mu jur ko ndaxte bi procès bi daanoo ñu bari dañoo gis ni Adji Sarr nekkul ci dara ñu ko doon jàppale nekkuñu ci dara léegi fi ñu ma jël la ngaamu mooy corruption de la jeunesse même Ndeye Khady Ndiaye mi teewoon te amul avocat sax Ndeye Khady Ndiaye ay avocat wu Adji Sarr mënuluñ ko woon dara mënu ko woon ko woon dara parce que làmmiñ mënuta lekk moroom làmmiñam fekk ñorul mais loolu lépp bu amee du càggan ni usmaan Ousmane ko gëmul yoon wala Pastef gëmulu yoon déedéet mooy yoon dañ leen mësul may dara parce que dañuy jël exemple mbirum mbay Mame Mbaye Niang le juge yaa xam kayta dafa jëloon dogal ne deux mois avec sursis teg li muy daan Ousmane Sonko bi mettre Olivier Sur di tubaab bi àndoon ak Mame Mbaye te di ko défendre bi mu génnee dafa ne verdict bi verdict gu apaisement la te mënul tee Ousmane Sonko dem élection ci mbirum Mame loolu la maître Olivier Sur wax Mame Mbaye Niang génn ni li ma bëggoon mooy rek justice setal ma jox ma dëgg pare naa ci dossier bi ñu dem ba ngoon ñoom ñu dugal recours bi ñu dugalee lumière bi ñu dugalee recours bi ñu àttewaat mbir mi teg juróom benn weer Ousmane Sonko teg ko ay amande amande yooyu jamono yi mi ngi ci cassation gën a diisal daan yi kon mooy ci Ousmane Sonko ci wàllu yoon musuñu ko may dara même bu gëmee yoon wóolu ko pare pour def lépp parce que ci mbirum Mame Mbaye Niang la ñu gis Ousmane Sonko heure bu jugee pour wuy ji yoon dinañ ko gàllankoor ba du dem gis nañ bi ñuy toj vitre otoom gis nañ bi naan fii dañ ko gazé am déet comme fii ñoom bëgguñu moom mu taxaw ci wàllu yoon layoo ak ay awakaam boo xoolee bari na ci ay procès yi am ay awakaam dana kaa gedd mais gedd boobu am na ñu ne jaru ko woon. parce que buñ doonoon taxaw layoo rek parce que comme seen mbër moo nekk ci dëgg te dëgg mooy mujj waroon nañ mën a taxaw ak lu leen nguur gi mën a teg te loolu li koy dëggal mooy ba ci mbir Adji sar boo xoolee stratégie bu gars yi doon teg yépp man dama gëmoon ni mooy Ousmane Sonko bu mu teew ci projet bi maanaam bu mu teew parce que bu teewee kenn mënu ko daan kenn mënu ko teg dara léegi ñu jël Ousmane Sonko xam ne waa APR yi danoo garaaw nguur gi ak waa bennoo yi danoo xam ne politiquement ñoom bu dee ni politiquement rek li jëm ci wàllu base bi xeexu politique mënu gagné Ousmane Sonko loolu moom nañ ko wax parce que amuñu militant yu mën a defanteeg militant Ousmane Sonko yi te combat politique yàgg na am ci réew yi ñaari parti seex ko di ko xeex gis nañ fi PS ak PDS gis nañ fi réew mi ak PDS mais ay parti yu doon xeex politiquement la mais bi ñu demee ba xam ne politiquement mënuñu jàkkaarloog Pastef ndax sa projet bi am na doole te mbooloo mi bari na te jaral na leen lu ne man dama gis ni danoo yëkkati ay levier yu ci mel ne justice administration ba ci sax takk der yi def leen benn genre bouclier booy jàngat doo wax ni looloo am de mais ci sa xel da ngay xalaat loolu mooy léegi Ousmane Sonko jàkkaarloowul ak. APR jàkkaarloowul ak appareil politique bu benn mais Ousmane Sonko léegi nguurug Sénégal la jàkkaarlook état la jàkkaarlool léegi loolu day indi Ousmane Sonko ci communication bu mësaan di wax da ngay dégg mu ne justice bi wax ci administration bi wax ci lii am ñu ne loolu mënoon na ko xam ba pare di ko waaf parce que piège boobu war ci nangoo daanu moom maanaam ñu koy dóor ci kaw justice ñu koy dóor ci kaw administration di ko dóor ci kaw takk der yi moom musu waru ko woon mën a nangu mais benn jamono Ousmane Sonko mun nga ko comprendre ci lu ne parce que danoo jot jikkoom dàq na la ci administration assemblée national dem nga ba nekk fa député boo roy wax sax ñoom ñëpp génn wala ñu lay saaga di la xas élection présidentielle atum 2019 lu Ousmane Sonko dalu dajul amul am na bëccëg bi mu doon dem Fatick dañ koo fa kar ñaata yoon lañ kar Ousmane Sonko ci atum 2019 ñu bëri dañ naan parce que parti fitna mais 2019 lu nu dajul ci terrain bi ñoom ci seen campagne amul pourtant boobu Pastef danoo dal seetaan bàyyi ba élection yi jeex mais liñ tegoon Issa Sall ca Tamba ba nit faatu fa mais lu mel noonu Ousmane Sonko daj na ko ci deux mille dix neuf ñu daan topp campagne Ousmane Sonko da loolu daan na am nga gis ñu jóge ci loolu ñëw dugal ci mbiri Adji Sarr mbiri Mamour Diallo mbiri mam Mbaye Niang mbiri amoon na fi waa waa xaw ma nan nappel yooyu yëpp mu jël loo xam ne da koy jug ci kawam euh, yamatuñ ci loolu mais di ko dóor sax ci kaw këru diine yi man léegi nag Ousmane Sonko nit la. kenn du wax Ousmane Sonko di def erreur ci wàllu politique mooy Ousmane Sonko dañ ko sëfoon loo xam ne tegal ko loo xam ne benn jamono li naan xol ak xottu leket ñoo yam xol ak xottu leket ñoo yam bu ñu feesee dañuy tuuru loolu tax Ousmane Sonko bëgg ko àtte ci ay waxam bëgg ko àtte ci ay xolam. boo ko àttee di ngay jum ndaxte bari na ci loo xam ne tey Ousmane ko dund na ko ci politique partem dund ko ci politique tey jii boo xoolee comité directeur Pastef ñëpp a ngi ci kaso bi militant ak sympathisant yi lu ma jun lu ëpp junni ñi ngi ci kaso bi ñiy faatu nañu loolu lépp ñu ndax benn jëmm jëmm jooju il faut ñu comprendre ni benn jamono eggoon na foo xam ne sax waxuma tëj ko tëjaale njabootam barricade ko barricade ko Ziguinchor mais barricade ko fi à Dakar dem ba amatul liberté de circuler alors que bi moo ko may nit maanaam nit ki di dem di dikk mais dem na ba mënatul loolu te pourtant kenn condamné wu ko ci kaso kenn tegu ko ci résidence surveillée kenn tegu ko ci dara looloo tax am ñu ne moom moo waxoon désobéissance civique gëmul yoon ndax yoonu réew mi tey ji lu tax mu war a dem ci yoon pièce boobu bu mu ci daanu na dem ci yoon li ko yoon may mu jël ko parce que boo gisee li xew heure bu Ousmane Sonko sumbee dara ci wàllu yoon nga gis Ismaïla Madior Fall génn seetlu leen lool maanaam heure bu sumbee dara ci wàllu yoon dugal ay recours rek nguur gi day def de telle sorte que dañ koy décourager ci wàllu yoon wala ñiy def de telle ko waa Pastef fi di attaquer waa yoon ak waa kii Ousmane Ismaïla Madior Fall théoricien du droit la moom du yoon mooy ministre de la mais du yoon ndax du juge te mënta atte il faut que waa Pastef nangu lool loolu ndax kàddu Ismaïla Madior Fall waruñu ko jox benn valeur juridique na ko jàppee ab politicien bu génn di wax moom mi kilifa procureur de la république moom na ko jàppee loolu bu nu bëggee noppalu ñoom te jàpp ni réew mi am na yoon di nga ni nu ko defee ci wàllu parrainage bi defee ko ci wàllu Mame dem cassation defee ko ci mbiri conti max bi Ziguinchor di nga lool buñ ci jugee maanaam lépp lu leen yoon may ñoom waa Pastef nan ko jël te bañ a bàyyi dara bañ bàyyi dara parce que man dama gis ne benn découragement benn taayaloo leen parce que réew mi lu fi ne ñëpp xam nañ ko Ousmane Sonko bu mu nangu jàkkaarloog état Sénégal di xeex na jàpp ni ab appareil politique bu ñuy wax APR Benno Bokk Yaakaar ñoom la jàkkaar lool. jàpp ni état bi ñëpp ko bokk justice bi ñëpp ko bokk administration bi ñëpp ko bokk même bu dee ni ñoom dañuy def lu leen neex mais def li la neex ak am li la neex du benn nan fexe ba administration bi du ñu am lu leen neex moo tax topp gi leen topp ci wàllu yoon mu baax waa ah, parce que gis nan li fi xew ci élection locale gis législative préfet yi ni doon doxalee ci locale gis ci dëkk boo xam ne tey ji dan ne maandute day am ci élection ñu gis ab liste suppléant bu jëm élection loolu nag kàddu yu Ismaïla Madior Fall na ko jàppee kàddu yu waa ji politique am fu mu far yor carte APR bokk bennoo bokk yaakaar jàpp ni ab système moo fi nekk te bu sañoon day continuer ndaxte système bi da ko arrangé ñoom nañ jàpp loolu rek kooku nag bu waa APR waa bennoo yi waa Pastef bu ñu xaar Ismaïla Madior Fall di wax lu leen arrangé wala lu leen neex parce que même ñoom ñuy wax sax déggoowuñ ci li ñuy wax parce que Ismaïla Madior Fall la mu waxoon ca sa TV ci mun a Ndour bokkul ak li mu wax ci seen TV diggante bi nag Ismaïla mooy wax wala Madior mooy wax man des fois dama naan est-ce que du bii mooy Ismaïla bi mooy Madior comme ñaari tur la kon moom nañ ko jàppee ab politicien léegi nag ñoom li li ñu war a def ci wàllu yoon parce que comme théoricien la jàng na droit mais day théorie mais am na ñoo xam ne dañuy pratiquer te nit ki du nu mu waxee nu mu jëfee la am na ay jëfkat ci réew mi te réew mi ba tey jii am na fi ay juge yaa xam kay de am na fi ay juge yu maandu yu jub am na fi ay Kéba mbay de am na fi ay Téliko de léegi bu ñu jàpp ni justice bépp mën na sax ba bu waa Pastef war a def du ko recours ci wàllu yoon ñu ne duñ ko def parce que li leen nguur gi bëgg a teg Pastef dem nañ ba yenn saa yi dañuy daanu sax ci yenn yi. mooy média yi da ngay gis ku jëm El Hadj Ndiaye jëm TFM ñu ne ko noo war a foon dem mais boo fa demul ñeneen dem fa te fii boo waxul ñu waxal la fa ñuy toog di wax foofu ngay dem toog wax parce que TFM ñëpp ko moom 7TV ñëpp ko moom bu ale El Hadj Malick demee ci Maymuna ak lu ko may mun a war a laaj mais na dem mais benn jamono danoo xaw a di topp mouvance bi mooy ñii suñuy noonu la ñii suñuy noonu lan langum noonu du tuuti ku mer dam ca bu nangoo am noonu li faatu géwal di wax man aw ma noonu am na ko mais du ko nangu noonu nangu jàppal ni am nga ko mais bu ko nangu kon stratégie bii ñuy doxe bu nu ko bàyyi li leen yoon may ñu jël ko jàpp ni Ousmane Sonko mooy seen candidat A ba Z parce que gisaguñu dogalu juge bu taxaw ci réew mi fii ne Ousmane Sonko mënut a doon candidat amagul loolu tax parrainage citoyen yi. ma dellu soit ci mot de l'ordre bi boo gisee mu am solo ñu ne nanu xaar Ousmane Sonko mooy seen candidat mais loolu ci lañ war a taxaw ba mu leer leen ni Ousmane Sonko mi nekkul candidat ñoom bu boobaa nag ñu roof beneen galgal te ñoom dañoo am ñaari sens mooy bu nu amee vingt six députés ci turu Pastef ji nga yàlla bu dee defar barke Seydina Mohamed day mel kuy yàq ji nga bi ñuy bàyyi liste suppléant Pastef di jàll sóoruñu woon li parrainage optionnel bi député yi sóoruñu ko woon xoolal tey li seen borom def mooy bu liste nationale bi bu jàlloon Pastef waxuma Yewwi de je parle de Pastef Pastef duñ am 26 députés yoo xam ne Pastef lañ yu mën a pare parrainer dem leen ci list nationale bi ngeen xool est-ce que sax. parce que liste nationale bi parti yi bokkoon ci yeewu leader yi dañ ko séddoo moo tax même bu liste nationale bi gañe woon Pastef pour mu am sax vingt six yoo xam ne ay député lañ Pastef du yomb mais yàlla suñu borom jàgg dogal suppléants yi jàll suppléants yi fa la waa Pastef ëpp ay député <laughs> suppléants yi looloo indi tey ji Pastef seen i député mën a def parrainage optionnel mën a ne ñaari candidat même bu doon ni parenage bii ñi bañal Ousmane Sonko ne waru ko uti mais beneen parrainage des na mooy parrainage yu député yi kon Pastef li ñuy def xam nañ ko te xam nañ ñu ngi ko seqal bu doon ñi nànd ñu leen woon mais tey ji ñu ngi leen di commencé di nànd léegi nag mu doon un projet Pastef du jëmmi Ousmane Sonko li ma wax ni Ousmane waxuma ko de. Ousmane Sonko moo ko wax te damay delloo waa Pastef ci seen meeting ba amul Kër Massar xanaa meeting bi militant wu Pastef yi dañ fay nekk di tàccu ak di kii daal comme politique c'est activité politique dañuy jëw di animer mais ku mel na man bokkuma Pastef duma militant wu Pastef mais man dama ñëwul pour déglu. parce que man li may dem ci manifestation politique bariwul parce que damay faral di wax naan meeting politique ak mobilisation politique c'est une activité politique nan ko bàyyi politiciens yi bu dee journaliste na nga dem couvrir mais boo couvrirul pour man mooy loolu loolu tax man lu may dem ci activité politique bariwul mais boobu comme sama gox Kër Massar la xewee dama dem déglu ji seetaan te boobu lu tax mu intéressant woon mooy meeting Pastef Kër Massar bi mooy Pastef bari na ay mobilisation yi mu doon def da ko doon def au nom de Yewwi wala mu def ko m mais boobu mooy mobilisation boo xam ne Pastef ñoo ko organiser seen bopp du yeewi te mobilisation boobu pour man seen coono foofu la tàmbalee parce que mbooloo mu mel noonu gisaatut ma même yi waa yeewu organiser ak Ousmane Sonko sax bi ñu def Kër Massar moo ko gën a dox te boobu Pastef kase ñoo organiser te boobu grève transporteurs yi dafa amoon mais teewul nit jóge na fu ne ngir mën a dem seetaani boobu déglu ngeen Ousmane Sonko ak. ñi doon wax ci turu Pastef déw doo dégg bariwul ñu wax di tudd Ousmane Sonko jour boobu laa comprendre ni waa Pastef am na fu ñu jëm te am na lu ñu xalaat peut-être nguur gi moo xamul fu ñu jëm ñu mais ñoom xam nañ fu ñu jëm te Ousmane Sonko li koy dal nii yépp boo dégloo ci déclaration am yooyu Ousmane Sonko mi ngi ko ci junj mi ngi naan mbir mi du yëfi nit. dé dégluwaat leen Ousmane Sonko ci discours am njëkk du yëfi nit affaire bi projet la parce que nit day dund day dee nit day am gàllankoor day feebar nit day nekk ci ay xat-xat ba mu teeka li mu bëgg mu dem jëli ko projet boobu nag mu doon wax dafa mel ne ci leen tollu tey jii te tey jii la ko waa Pastef yi war a comprendre jëmmi Ousmane Sonko c'est bien parce que jàkk ju ne day am élimaan waaye ndokk day am mais projet bi dafa jéggi jëmi Ousmane Sonko dafa jëmmi jéggi Guy Marius projet bi dafa jéggi Abbas Fall dafa jéggi El Malick mais dafa jéggi Birame Souleye dafa jéggi Diomaye Faye léegi nag projet boobu kan moo ko war a porté te Ousmane Sonko bu ma juumul ci wetu Pierre Édouard Faye ci Walfadjri ba mu nekkee Ziguinchor wax na ko wala ci beneen live bi mu doon def mooy doon njiitu réew bu Sénégal du obsession ci man terewuma nalaw te gëm naa ni Ousmane Sonko du nit ku bëgg yenn daraja yi pour man force am loolu la du nit ku bëgg xaalis du nit ku bëgg nguur sax lii ni dama gëm ni coonaam yépp ngir mën a dimbali sénégalais yi la man loolu laa gëm coonaam yëpp li ko dal parce que li ko jaral génn impôt et domaine ak la mu fa waroon am yëpp li ko dalal tey jii mu dund li muy dund tey jii moom ak njabootam te bu nekkoon comme yeneen politiciens yi li ko dal du ko dal ay protocole mu ngi fi ay deal mi ngi fi ay waxtaanu suuf mi ngi fi am na loo xam ne bu ko nangu woon tey génn loolu laa gëm parce que Idrissa Seck gé dugg na kër Ousmane Sonko génn ne la ma ko wax mooy na xaar ba atum deux mille dix-neuf Barthélemy Dias génn na wax ko keneen ak keneen génn na wax ko mooy na xaar ba atum deux mille dix neuf comme li ñu defoon Karim Wade ñu bari dañoo jàpp ne Karim dana ko tëbal na xaar ba atum deux mille vingt neuf bokk Ousmane Sonko mais deux mille dix neuf Karim Wade dafa mel dana ko xaaral ba deux mille vingt quatre ak lu mën a xew xaar ba deux mille vingt quatre léegi ñu xool na lañ koy lijjantee waxuma ni looloo am mais Ousmane Sonko bu nangu woon ne deux mille vingt quatre du bokk mën na xaar ba deux mille dix neuf signé ay protocole mooy Ousmane Sonko du dugg kaso mun na fi nekk di gëmloo waa projet bi waa Pastef ni candidat la fekk doonu ko parce que bari na ci politiciens Sénégal ñoo xam dañuy sóob mais tappale yooyu yëpp gars yi ne nekku ci loolu nag mooy force am loolu mooy doole kii di Ousmane Sonko loolu tax il faut que ñu xam kiñ ko séqal ñoom waa Pastef parce que fa mu ne bu ko neexoon génn man gëm naa ni parce que bu meloon ni yeneen politiciens mën na nangu yenn ni nangu ni du doon candidat nangu ni mën na xaar ba atum deux mille dix vingt tey jii këram lay reeree ku mel noonu nag boo ko amee danga koy sagal dafa am benn kilifa bu mu wax ni Ousmane Sonko même bu deewoon day gaje <laughs> ma ni ko ku dee na lay gaje mu ne parce que ñiy wotee dinañ dem wote ko ngir delloo ko njukkal mu ne kon prison bi mu ne doonul problème ci moom ndaxte bu fa nekkee ba bésu élection même bu nekkul candidat nit ñi dinañ dem wote pour mu génn te pour man combat bi loolu la war a doon waruta doon naan non ku ne di xëcc jëmale ci borom parce que tamit li am ci yeneen parti warul am ci Pastef parce que nag Pastef dafa am ay junni ndaw yi nekk ci kaso bi te xeexal Ousmane Sonko moo leen ko yóbbee dafa am ay xale yu bari yu dee te xeexal Ousmane Sonko moo leen ko yóbbee dafa am dafa am dafa am dafa am ñu ñàkk seen liggéey ci administration xeexal Ousmane Sonko moo leen ko yóbbee dafa am ñoo xam ne tey ji ñi ngi tumuranke nekk ci ay xat-xat yaatootuñ ci réew mi ba exile daw dem Ousmane Sonko moo leen ko yóbbee loolu warul naax saay kon tey jii même bu Ousmane ko nekkul candidat ñi war a dem ci turu Pastef Ousmane waru leen gën a gore xale ci kaso bi waruñu leen gën a gore ñi dee ñi exilé waruñu leen gën a gore te pour man benn combat moo fi ne mooy fexe ba ki war a jël réew mi ëllëg libéré xale yi ci kaso bi. li réere xale yi ci kaso bi seetal leen benn seet wicc parce que am na ci ñoo xam ne li leen tuumaal gàll leen ko même bul génnoon te teguwul leen ko mën na xajamal seen ëllëg seen casier judiciaire ak seen liggéey ak seen lu bari parce que daf ci bari ñoo xam ne ay kilifa lañ te danoo yoroon ay responsabilités yu rëy ci réew mi am ñu bari danoo jàpp ni justice sa foro am ci réew mi am ñu bari jàpp ni alal réew mi ñuy fob di ko sàcc am ñu bari jàpp ni ñoom Ngagne Demba Touré danoo war a ñibbisi mbir mi soreetul ñeenti weer a ci des kon Pastef nañu nitee loolu bu ma koy wax nag waxuma les militants waxuma les sympathisants ñooñu li ñu waroon def yëpp def nañ ko mais ñii di outil parrainage waxuma Sonko moo leen ko sant waxuma stratégie la bis bu nu demee bis ban ne diw mii mooy candidat wu Pastef la waay ñin gëmee woon Ousmane Sonko gëmee ko projet bi bis bu Ousmane demoon tey ba tànn ni diw nan ko jàppale ji nan ko jàppale góob ma ni benn Abbas Fall dafa war a génn naan man ba may tàmbali ak Pastef benn biram Souleye ñu ne membre fondateur wala ñun benn Diomaye Faye wala benn El Malick déedéet tey bu Ousmane Sonko ne woon Guy Marius Sagna la. bu buñ fi nekk ñu naan Guy Marius Sagna du membre fondateur bu Pastef de déedéet nan topp ci ginnaawam te xam ni kii kat ba xeex jotee xeex na naam juddoowul Pastef waaye bi mu màggee taxawu na Pastef foofu kenn dul taxawu jaral na ko dugg kaso jaral na ko bi ñuy gaz Ousmane ko mu ñëw taxaw noy gaz bi jaral na ko di dem bitim réew jaral na ko di taxaw ci assemblée nationale di wax la mu war a wax jaral na ko lii jaral na ko lee jaral na ko jël alalam fu ne mu dugg fa lu ne mu def ko ku sonn mu taxawu la laqatuwul de laqatuwul ci dara tey jii li Ousmane Sonko mënul ci diaspora bi mi ngi dem di ko defi teg ci nag personnage yu Guy Marius Sagna xamul tax mu intéressant Pastef da ngay dégg ñu naan leen ay islamiste ay terroriste loolu ñi koy wax daa am lu ñu ci jublu mooy combat bi sur le plan international ak internationalisation bi loolu lañ bëgg a xajamal ba waa bitim réew ragal Pastef ah nañ ñi de ay terroriste la ñii ay islamiste lañ moo tax waa bitim réew taxawu bi ñu waroon a taxawu Pastef duñ ko taxaw loolu tax ku mel ne Juan Branco na ko waa Pastef yi gërëm ndaxte bu doon ay islamiste ak ay terroriste Juan Branco du leen jàppale mais ñëw na ba ut ay information ci réew mi ba xam lan mooy projet wu Pastef mu taxaw ci tey jii lu tax personnage yu Guy Marius Sagna baax ci Pastef foofu laay tëjee mooy parti boo xam ne na ay terroriste lan ay islamiste lan <laughs> ah parti boo xam ne dañ leen di jën terroriste ak islamiste dem ba président dem bitim réew di ci wax parti boobu bu nee candidat am wala plan B am wala ki ci taxaw ki ci gën a taxaw Ousmane ab chrétien la tudd Guy Marius Sagna loolu ça veut tout loolu ça veut tout loolu daa am benn tuuma bi muy teggil Pastef loolu dax Pastef li naan yàlla méda jë loxoy sunu borom da cee xaw a ne mbiri sunu borom da cee xaw a ne parti bi ngay jiñ islamiste ñu ne seen candidat lii la chrétien walla boog ñi ñu yaakaar ne mën nañ doon plan B ab chrétien mi ngi ci biir mooy wala ni la leen jën du dëgg kon lépp loo xam ne ñu ngi leen koy tumaal rek jamono da koy weddi loolu nag mbiri sunu borom la looloo tax ñii dem jëli parrainage nañ déglu seen parti mais déglu Ousmane Sonko déglu militant yi parce que xale yi lebal na leen loo xam ne bis bu ñu fi nekkee di xëccoo wala ñu nekk fi di xeex ngir mën a doon plan beewu di leen trahir projet bi dinañ trahir Ousmane Sonko dinañ trahir xale yi ci kaso bi dinañ trahir ñoom Ngagne Demba Touré dinañ trayir xale yi de waa Pastef li xale yi naan doo doo doo ñoom te du nu yow ñoom yamuñu ak ñii yamuñu ak yeneen parti yi kon ñoom daa am yoo xam ne waruñu ci dugg xëccoo daraja xëccoo candidature xëccoo plan B loolu ngal la bu ko kenn dégg Pastef loolu bis buñ ko defee. dinañ toñ Ousmane Sonko toñ goo xam ne du leen jik mukk ci àddina mbir mi du mbiru nit mbiru projet la mooy si beneen système boo xam ne dañuy taxaleeg li fi ne depuis 1960 kon di gërëm ñëpp di leen sant di jégalu ñëpp nag di balu àq ñëpp ah, di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan dëkk bi am jàmm ak salaam gars yi am wér am sutura di jaale waa groupe euh, des médias Momy Dany directrice générale di soxna Bougane Gueye yàlla na ko suñu borom jéggal xare ko àjjana may leen xolu muñ ah, di ko jaale sama copain di jë Omzo ak euh, ñoom Bougane Gueye yëpp ak euh, euh, ña nekk ca kër ga mbokk yi kon jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.